dem ca Thiès mu mel ni nag daal nañuy daloo li nga xam ne moom moo di centrale électrique digitale mu mel ni nag lu njëkk la ci tundu Afrique ba tax askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo nag ci yenn ci ay gox yoo xam ne ñoo fa nekk mën nañ am li nga xam ne moom moo di euh, courant dañ ciy dellu ci ak ki nga xam ne moom moo di Pape Mademba Bitèye moom nag moom mooy directeur euh, bu euh, Sénélec Cheikh Anta Diop ak Sélatiir ñoom ñoo taataan ay kàddoom. dañ si am mbégte. ndaxte bu ñu ñëwee ñu xool chantier yi ñu fi fekk kontaan nañ ndaxte malgré le fait que wàññi nañ ñu fi doon liggéey gis nañ ne chantier yi pratiquement du am retard loolu nag su mu nee am c'est parce que dañu am benn partenaire bu nga xam ne nii muy Vinci partenaire bu xam lu muy liggéey la partenaire bu mën lu muy liggéey la kon boog loolu moo tax ba ñu yegsi fii nii ñu yegsi en tout cas lu ñu mun a wax conformément ak instruction yi ñu jot mooy que ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan. pour que wàllum courant bi service public électricité bi bu mu am benn manquement ndaxte si àdduna bi yëpp boo fa dëkk boo dem léegi ñetti service yi rek mooy service de base yi mooy électricité mooy ndox mooy santé kon boog loolu noonu fii nii ak instruction yi ñu jot si président ñu def suñu kéemtalaay kattan pour fexe ba nga xam ne loolu du am benn manquement dinañ ko mun a joxe comme nu mu waree ñu def ko comme nu mu waree donc loolu moo tax tey jii ni ñu am mbégte di wax population bi tamit ñu ngi leen di ñaan comme nu ko président di waxee toujours ñu respecté geste barrière yi maanaam distance yi ñu respecté ko ñuy raxasoo ak saabu ñuy moytu daje yi daje yi amul benn solo lii dañ ko mënul woon ñàkk def rek parce que dañuy wane ne dëkk baa ngi dox dëkk bi am nañ problème waaye ñoom it dinañ def face dinañ ko jóor lool moo tax ñu def nii mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax na nañuy déglu conseil ak ndigal yi nga xam ne mooy jóge ministère de la santé pour ñun ñëpp ñu mun a aar suñu réew.